asalaamaaleykum suñ mbokku téléspectateurs yi ñuy topp ci biir Equivox TV tey ñoo ngi si seen beneen numéro di am mbégte ak contentement di dalal ki nga xamante ni doon euh, au conseil doon ki nga xamante ni membre la au niveau du conseil départemental de Nioro Drib ñu gën ko xam ci Matala Fall monsieur Matala Fall ñoo ngi lay dalal ci biir Equivox TV pour la première fois. Mm-hmm. di la bàyyi nga nuyoo suñu mbokku téléspectateurs yi. Mm-hmm. bi la ñuy tàmbalee suñu waxtaan. waaw kon maa ngi lay delloo nuyoo. Mm-hmm. di nuyu spectateurs yëpp. di leen gërëm aussi ci accueil bi. Mhm. ak ci dalal bi. Mhm. Euh, di ci kontaan bu baax. jërëjëf. bien di nuyu ñëpp nag. merci beaucoup. Euh, particulièrement nag mhm. ñi nga xam ni ñoom laa bokkal ànd defar Nioro. ànd defar Nioro waaw ñooñu moom dama leen beral nuyoo spécial. Mm-hmm. <laughs> waaw d' accord. jërëjëf euh, waaw d' accord ak waa Nioro yëpp nag. waa Nioro yëpp <laughs> suñ duggee ci waxtaan wi dañuy commencé fi nga xamante ni moom nga tàmbalee mooy ñi nga xamante ni mooy ànd defar Nioro. Mm-hmm. nga nekk ci biir coalition benn Bokk Yaakaar. Mm-hmm. ñu jëm ci ay élections municipales. pourquoi ànd defar Nioro lan moo yàqu Nioro. waaw c' diir à dire xam nga ànd defar Nioro bi sax du tey la commencé. bien defe naa ni bii mooy suñu ñetteelu candidature. pour ñooro c'est-à-dire loolu li muy témoigner rek muy yéene bi nu amal Nioro c'est-à-dire Nioro du mu sa jeex ñooro du mu sa jeex Nioro waxtu wu ne dafa am lu ñu ciy def nun nag dogu nañu pour ñooro ñu ànd ñoo xam ni dara lu ñu yitte lu nu du defar Nioro ñu tuddee ko group bi ñu tuddee ko loolu nekk ci nag muy groupe politique mhm. di liggéey pour mairie Nioro nag parce que suñu objectif mooy gagné mairie Nioro mën a élaborer noonu nag li nga xam ne moom la ñu bëgg def Nioro def ko fa loolu moom mooy sunu doxal suñ waxee Matala Fall ànd defar Nioro nga ne nekkul léegi la taxaw bi mooy seen troisième candidature pour la mairie de Nioro mën neen si noter constance dans les démarches mais pourquoi à chaque fois ngeen di dem du ngeen jàll pour être maire de Nioro Drip. waaw blocage bi fan la. Mhm. waa ñooro dañoo jàpp ne da ko Nioro. Mhm. wala fan la blocage bi nekk. waaw non blocage bi amul sax c'est-à-dire lu nekk processus lay day demee loo gis rek dafa am processus bi muy demee mhm. boo xoolee man euh, boo tey jii boo yore woon benn tableau. nga xool sama évolution biir Nioro. nga mën a xam ni. incha allah dana baax. évolution bi loo ñu si man a évolution bi benn bi d'abord dama lay wax ni 2009. 2009 2014. Mhm. dañu coaliser. Mhm. ba nu coaliser nun ñoo gagné. Mhm. j'étais le premier adjoint au maire de Nioro. doon nga Nioro premier adjoint au maire de Nioro. waaw 2014. 2014. ñu dem suñu candidature. au niveau de Nioro il y avait yoo xam ni dañu ànd ak coalition bu yaatu. mais malgré cela nous sommes sortis les comme troisième. donc je pense que. élection bii ñu jëm il y a espérer. élection yi ñu jëm il y de quoi espérer mais Matala Fall dafa bokk si li nga xamante ni moom mooy coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw mais Benno Bokk Yaakaar mais Bokk Yaakaar aussi. Mm. ñooroon ndax yéen a ngi nekk si dialogue di waxtaan pour am. candidat unique euh, wala nu muy demee. xam nga fi ñu tollu léegi Benno Bokk Yaakaar lañ ne. Mm-hmm. ku nekk am nga droit postuler pour la candidature de Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. mais kenn moo ci doon candidat. waaw man lay doon. man man man man man man. Talla Fall yaa ngi si biir Equivox TV. waaw exclusivement nga nekk. waaw nga ne yow yaay candidat. man candidat la pour pour nekk. et puis je pense kan moo ko décidé. non coalition bee ko décidé wala Macky Sall moo ko décidé wala kan moo ko décidé. yeggagunu foofu. Mhm. yeggagunu foofu mais dama ni man. mais pourquoi nga affirmer ne yow la. mais man candidat la. mais et puis et puis bu ma xoolee dans la pratique li nga xam ne moom laa xam ñooro man. Mhm. su ma xoolee ñooro. Mhm. xam candidat yi nekk benn bokk yaakaar. comme kan ak kan ak kan. Euh, bari na. comme kan bari na man je préfère je préfère ma bañ a dugg ci seen seen seen seen tur. Mhm. mais de façon bari nañu. Mhm. am na candidat yu bëri yoo xam ni ña ngi fay ku ni ñoom tamit nee na candidat la. Mhm. mais man je suis candidat et je veux être le candidat de Benno Bokk Yaakaar. mais je veux je moo gën ne yow la. non en man je pense que man la war a doon parce que xam nga li tax euh, on se connaît aussi à Nioro. man j'ai fait 42 ans à Nioro. je suis avec les populations. pendant quarante deux ans. j'ai fait vingt deux ans CREAME à Nioro. j'ai fait 18 ans comme principal mais 22 ans créé amee bi di jàngale biir Nioro drip état moom moo la fa indi. di waaw waaw maa ngi ñëw mais je servais je servais pour les jeunes de Nioro. mais aussi je servais je servais pour les jeunes de Nioro. mais yemuma ci loolu loolu la siy remercier bu baax a baax. yemuma ci loolu loolu entre guillemets dañ la siy remercier bu baax en tant que doomi Nioro. waaw mais état daf la fay indi la fa. d' accord mhm. d' accord mais mënoon naa fa bañ a def 22 ans. mënoon naa fa bañ a def. 42 ans mais est ce que ñëwoon dëkk bi neex nga toog. ah mënoon naa fa bañ a def 42 ans. Mhm. loolu li muy témoigner mooy dama bëgg quarante 42 ans bu ma ko toogee benn place dafa fekk ni foofu dama ko bëgg. ndeysaan ndeysaan ndeysaan bien bëgg Nioro boobu. et puis sur beaucoup de terrain j'ai été pendant combien de temps j'ai dirigé la jeunesse de Nioro dans le cadre du mouvement nawetaan ouais, président d'ASC mhm. président de zone mm -hmm. président d'ODECAV ASC waar <laughs> yi ASC Ngaañmaan mais mhm. aussi si biir ASC waar yi foofu nga dëkkoon non dirigé naa ko nekk naa président à deux reprises président de zone président de d'ODCAV premier vice-président de l'ORCAV de Kaolack dix ans troisième vice-président de l'ONCAV tout ça au nom de Nioro bien Nioro m'a apporté beaucoup de choses Merci. mais moi aussi j'ai apporté beaucoup de choses à Nioro entre Nioro et Fall c'est un mariage et ce mariage la on veut on veut fêter ça le 23 janvier deux mille vingt gis nga ne mariage boo xamante ni la du tas. waaw non du tas. entre ma Talla Fall et Nioro nekkul mariage bi tas. non no non mënul ta tas. ma j'ai tout à Nioro. tes enfants. j'ai au-delà de mes enfants j'ai enterré à Nioro ma femme. oui c'est vrai j'ai enterré à Nioro mon fils ma Nioro je suis Nioro. et donc aujourd'hui moi je pense que je n'ai pas vu un candidat si je l'avais vu je ne serais pas candidat qui peut jouer ce rôle pour Nioro. qui peut aujourd'hui venir. non si olof la ñuy defee émission waaw bu ma gisoon candidat boo xam ni. loolu ñooro jaral na ko loolu. candidat boo xam ni population yi jaral nañ ko loolu. koo xam ni day côtoyer population yi. côtoyer day bokk ak ñoom mettit bokk ak ñoom naqar. su ma ko gisoon mën naa mën naa la wax ni man mën naa bañ a nekk candidat benn bokk yaakaar mais moi ce que j'ai vu depuis toujours nit mooy jóge fële rek. ñëw ñooro nekk candidat pour avoir le titre nga dem à Dakar tu restes à Dakar tu laisses Nioro. doo doon benn maire boo xam ne. waaw bàyyi fa bàyyi nekkoo maire bi résident toog ñooro xam jafe-jafe. askan bi non doo vivre xam mais yow te soo waxee nga ne coalition Benno Bokk Yaakaar. Hmm. émission bi c'est important aujourd'hui nga ne Benno Bokk Yaakaar gisoo fa koo xamante ni mën na doon candidat c'est-à-dire ñoom dañoo tële Matala moo mën. non du problème mu tëlee. mais question de dañoo xam nga d' abord mbi dëkk da nga fay dëkk. mais ñoom foofu lañ dëkk. ah foofu lañ dëkk. ñooro waaw kan moo fa dëkk. non dama lay wax dama lay wax yow xam nga ñoo fi wax ñi ñëpp si ñoro waaw d' accord d' accord d' accord j'ai seen carte d' de la chance que mm-hmm. ki may waxal ñooro la dëkk mm-hmm. muy yow kan moo fa yore jabaram ñooro boo xam ni waa ñooro mën nañu ni di jabaram a nga ne waa ñooro xam kan la fa ñooro xam kenn ci koy doomam ñu ni kii doomam la ñooro kan dëkk foofu ngay def sa jabar ci biir coalition benn bokk yaakaar yëpp yi ma lay wax yëpp yi nga xam ni ñëpp prétendre nañu candidat waa Nioro xam nañu naa la jox ay tur yoo xamante ni seen doom ñoo ngi Nioro seen askan ñoo ngi Nioro direct kan la le président du conseil départemental Malaw Sow ngeen bokk benn ko jët ñaar Malaw këram moo ngi Nioro ak njabootam ak jabaram Malaw moom li ma ci dégg moom nee na il n'est jamais candidat pour la commune de Nioro mais il est candidat au niveau départemental waaw waaw mais il est candidat pour le moi je suis candidat pour la commune de Nioro au niveau départemental ah au niveau départemental au niveau département je suis non je ne suis pas candidat au niveau départemental vos ambitions sont limitées actuellement je suis je me propose non, candidat dama dama jàpp ni candidat laay doon pour commune Nioro duma candidat pour département Nioro loolu moom c'est c'est clair de mm-hmm. da amul caution bu mat quoi non caution bi du xam nga caution moom caution ñëpp am nan ko mm-hmm. ndax ku dem départ ku dem commune mm-hmm. da ngaa fay quinze millions quinze millions au niveau départemental aussi quinze millions waaw mais man man bu ma sama parti su ko neexoon su su ko neexoon mu def ma candidat département parce que da ko mën na ko fay Benno Bokk Yaakaar tamit mënoon naa prétendre ci Benno Bokk Yaakaar pour ma nekk candidat départemental mhm. mais man Nioro laa xool mais yow nag looy wax nan indi problème au niveau communal et départementale. Ah. parce que soo jugee ne yow candidat nga keneen ju si coalition bi de candidat nga te waxtaanu leen toogu leen ñu jëm si élection yi léegi mu jot janvier ñoo ngi ciy dugg. Mm-hmm. est-ce que du ngeen may sens seen opposant yi ñu ñëw jël candidat bi. non non c'est-à-dire cest à amul problème boobu. amul ban problème Nioro amul problème mu opposant buy jël. pour lu tax amul ko. non non Nioro amul ko cette jeunesse Nioro wax dañoo taxaw carrément ñu bëri ah, dañoo ah, ñàkk confiance si yi. surtout les hommes politiques de Macky Sall. waaw mais bu la neexee loolu ku nekk il chacun est libre. ku la neex nga di awma ci confiance loolu moom c' est liberté. mais de la façon nous mais seen féewloo bi est ce que ça vous arrange non non seen féewloo bi amuñu féewloo mais soo ne candidat mais loolu du féewloo man am naa droit bëgg candidat la mais am naa droit bëgg mais pourquoi ndax toog waxtaan bi am na wala am waaw ah, peut être ni waxtaan a gunu yow yaa ngi def jéego pour waxtaan am ah yaa si non dafa naa ne mën a wax waxtaan mais man je pense que bu ñu waxtaanee. Mhm. bu ñu waxtaanee pour l' intérêt de mhm. pour l' intérêt de Nioro rek. Mhm. ma candidature n' est pas à rejeter. ok tey soo taxawee dëggal sa candidature. nga jàkkaaroog askanu Nioro Dream. jàkkaaroog sa coalition. te mairie suñ xasee ba yor ko. wut bi mën leen wut ay position mais ku dem ba yor mairie. institution boo xam ne ñëpp nga uuf ñëpp nga njabootee. tey soo amoon kàddu booy wax ak sa constance. ak li nga xamante ni dund nga ko biir Nioro drip di ko wax askanu Nioro mhm. di ko wax ñi nga xamante ni ñoo nekk si kaw ak politique yi mhm. ban message lay doon non message boo xamante ni c'est un discours raisonnable et véridique non cest à man li may wax moom rek laay wax mhm. man du ma tricheur du ma démagogue du ma je ne buy proposer lu mu gëmut j'ai fait toute une histoire à Nioro mais je kenn mënuma ñëw ni ma mas nga ma wax lii defoo ko walla jëm lii nga jëm nale man li ma gëm laay dox Nioro je suis li ma bëgg mooy mu nekk candidature boo xam ni ñooro ñëpp lay boole ñëpp ku ne ku dëkk Nioro rek nga yëg ci sa bopp nga gis ci sa ci mairie la maire man en tant que maire nga gis ni man uuf naa la di gis ni man jàppale naa la gis ni man ànd naa ak yow ci lu mu mën a doon nag. mais taxawaay bi yow yaa ko war a njëkk taxawee. man laa wax man laa wax en tant que maire. Mhm. taxawaay boobu danaa ko taxaw. Mhm. danaa ànd ak ñoom danaa leen jàppale. Mhm. li nga xam ni mooy alalu mairie. danaa ko jaarale ci jaaralin bu gën a rafet. dëkk bi jaaralin bu gën a. bu gën a rafet. kon loo nekk ñor yam ñu koy gaay di jaarale rafetu mais mais yow tamit. non euh, dama laaj dama lay dama lay dama laaj loo xam nga wax ñu ko. duut si baaraam danaa la danaa la ko waxal léegi duut si baaraam ne lii. léegi dama danaa ko wax danaa ko wax. au départ dama lay jox benn exemple dama exemple. waaw man may laajte au uh-huh. niveau communal et au niveau départemental sa baaraam ne lii. waa léegi wala yii waa léegi kaay ma waxal la rek. Euh, mm-hmm. boo demee tey Nioro. Mm-hmm. mën nga dem benn ay quartier Nioro yoo xam ni benn làmp amu fa. comme yan. ah comme xaar yàlla. boo demee tey. loolu ko waral si pël géleel si disparse waa dafa nang dafa nang rek nga dem pël géleel làmb ko fa nga dem quartier Daaru Salaam temps yi foofu laa nekkoon mais bis ba ma musuma woon xalaat ni délabrement ñàkk toppatoo quartier mel na ni li nga xam ni def nañ ko ci quartier jàmm gën. loolu parce que man je me disais maa ngi ñëw municipalité maa ngi ñëw. maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. man dama yaakaaroon ni euh, quartier Daaru Salaam quartier fas HLM mais ba ma demee jàmm gën ba ma demee jàmm gën ils sont oubliés oubliés moo di buñ la damay lay jox benn exemple yu comme nga xam ne mën nañ si du baaraam nit ñi tamit da ngay jël da ngay jël tout simplement ay xam nga ñoro état bi dafa maye foofu ay lampadaire lampe solaire yoo xam ni de mon point de vue man bu doon maay maire damay seet milliers yi nga xam ni amuñu courant. attends ma maa ngi ñëw. non looy wax dafa am solo. état moo may lu fa nekk. waaw kun yow bokk nga ci. ñiy wax ne carrément ñor lu fa am quatre-vingt-dix pour cent. loolu yëpp boo bëggee danañ ci jëw léegi mais dama bëgg a yeggale cas yi waaw yeggale mu joxe ay làmp solaires. Mhm. mais man li ma yaakaar. su nekkoon man maay maire te uuf ñëpp. jëpp ñëpp def leen sama njaboot. ñi nga xam ni làmp amu fa dara amu fa ci lëndëm lañ nekk du ma yëpp làmp solaire yi au moins lu bon bon bu ma leen sampalulee ñaar sax sampal leen ñett ñu mën a niit seen doom yi am fu nuy fooy mais boo demee tey ñooro biir ñooro nga dox ñooro te nga ñëw fekk foo xam ni làmp làmp courant dafa takk ba noppi ñu taxawal fa solaire nga dem nga dem nga dem ay quartier yoo xam ni lëndëm ngay dox loolu loolu lu nu duut baaraam la. lu ñu mais attends mais wax ji force mu leer te ma Talla Fall hmm. loolu maire bi Abdoulaye Ba ak équipe municipale bi ñoo décidé loolu. waaw waaw de la façon. donc da bëgg a wax ne c'est une mauvaise da a wax ne décision de l'équipe municipale. bien sûr loolu c'est ça de soi bu ma ko waxee kay ça va de soi. parce que nee naa la man bu ma doon maire man du ma defee noonu. donc c'est l'échec de la municipalité. bien boo jëlee. maintenant li nga wax non yow yaay confirmé c'est l'échec mais mais plus que plus que échec pour le maintenant boo ñëwee nii nii euh, état bi lu mu fa def ñooro li fa nekk yëpp Macky Sall ko fa def. kon mairie deful dara. Ah, laaj leen ko. non laaj leen ko non da nga da nga. doon nga candidat doon candidat lii soxal la. waaw mais mais dama lay laaj yow ma Talla Fall en tant que sama invité. waaw mais mais defuñu fa dara dara defuñu ko fa. bu dee lampe yi bu dee courant bi assainissement tout mi y compris mbalit yi nga fay jël. mais tout ça c' est c' est Macky Sall mais temps gis nañ fa oto mbalit yooyu yëpp wala. waaw mais mais loolu c' est projet bu Alimane yore yore ko du Sénégal du du Nioro rek dans toutes les villes presque ça n'a rien à voir la mairie ay nit ña leen fay jël di ñuy liggéey ñu leen di fay mais est ce que sax kontaan nañu moom ñoom ci ñu leen di fay est ce que ñoom sax est ce que ñoom laaj nañ leen laaj est ce que ñoom ni ñu leen fayee ak ni ñu demee lii ciy jaar ci est ce que mi ngi jaar yooyu yëpp c'est des questions mais dama la bëgg wax ni. amul mais yow en tant que kii amul en tant di gëstu mairie aussi. margo bi nga xamante ni ma gis neen ko Nioro loo si xam. la lan margo bi. c'est bien pour la population. mais margo mais mais mais une mairie une mairie a des moyens les moyens c'est pour faire des choses mais je pense que c'est venu avec beaucoup de retard après avoir fait chanter toute la non, population ñëpp di cotiser ñëpp di cotiser di cotiser ba ba ba à la fin maintenant maintenant au la sax. mairie bi moo doon cotiser loo nit ñi wala nit ñi amoon initiative pour def une participation citoyenne non waxuma mairie moo leen cotiser loo mhm. mais nit ñi aussi bu ñu amee seen jafe-jafe kenn wuyu leen ci mais du ñu tëdd nelaw dañuy essayer def action action boobu amoon na fa amoon na fa nit ñi di cotiser ba ñu demee ba yàgg madame Macky Sall Mariama Sa Mariama Mariam Faye Mariam Mariam Mariam Faye Sall mhm. indi fa deux caisses c'est ce qui a permis aux gens de souffler <laughs> mais normalement mais ça revient à la mairie de le faire ça revient à la mairie de le faire. mais après combien de temps. non margo bu fa am. Marième Faye Sall moo ko fa njëkk indi. waaw waaw waaw c'est vrai c'est vrai. ah waaw. maintenant maintenant maintenant maintenant léegi mais ils le mais après combien de temps donc c'est pour diir que c'est pour dire que euh, mairie Nioro il y de choses à faire d'abord li ngay jëkk a def mooy xam nga une ville kenn du ko gérer yanu ko ci sa bopp kenn du ko yanu ci bopp da ngay waxtaan ak nit ñi soo waxtaanee ak nit ñi xam li ñu bëgg. te seddale bi dafa war a doon tolloo nekkul ñu am. waaw kii ku moom mu am ndey ak ku moomul ndey. da waxtaan ak nit ñi nga xam li ñu bëgg xam jafe-jafe yi. Mhm. bu ko defee nga ma mais bu nekkee yow maire boo xam ni population yi sax xamuñu la yow xamuñu la. non Ablaye Bana ñor la taw de génn ñor de monsieur le maire. non man euh, discuter wu ma toog la ñoro waaye de la façon population ñoom gisuñu ko. population yi moom bu dee toog na ñoro bu dee mi ngi dakaar moo ci yem. population yi ñoom dañ la war a gis nga bokk ñoom mettit yi bokk moom yomb yomb yi bu ko defee nga xam nga xam seeni programme. nga xam lool leen di defal mhm. xam loolu leen dul defal mais suñ waxee mairie Matala Fall avant ñuy dugg si conseil départemental bi di tëjee si au conseil bi mairie dafa doon structure boo xamante ni c'est limité au niveau communal lay limité limité wu quoi tey ban programme Matala Fall mhm. parce que tamit askan wi sonu neen trop ci politique wax mhm. bon programme bu raisonnable ngay tegal waa Nioro Trip en tant que ki nga xamante ni bëgg nga doon suñ meex waaw d'accord xam nga xam nga man dafa am lu ma Euh, ma toog Dakar jël sama bic ni bind ni lii laay defal Nioro lii laay defal Nioro loolu loolu programme yooyu man gëmuma ko. mais dañoo voté waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. Mhm. maa ngi ñëw man li ma gëm. Mhm. damay déglu nit ñi. damay déglu nit ñuy xam lan moo leen métti. mais si domaine de compétence ah, maa ngi ñëw parce que mairie domaine compétence domaine compétence limité la quoi nekk d'accord mais li ma yor. Mm. li ma yore gérer rek laa gérer ni damay gérer lu ma war a gérer. mais soo déggoo ñu wax leen lépp te mënoo gérer lépp tamit dafay di politique su ma mm-hmm. tamit danaa wax ñoom communication dafa baax. ñu bëri foofu lañ la dafa baax dama leen di déglu. Mm-hmm. ñu wax ma ñoom lan mooy seen problème lan mooy seen bëgg-bëgg. Mm-hmm. ma wax leen mairie tamit li nga xam ne noonu nu mu ko yoree. nekkul lépp ensemble ensemble ñoom ak man. ñu taxaw ci loolu. loolu mooy programme mais du question ni ma ñëw fii jël feuille en tant que intellectuel ma bindal fii lu ne loolu mooy li ma bañ ca départ ba ma ni la man duma nit koo xam ne damay ñëw di wax loo xam ne gëmuma ko parce que lu ma gëmul duma ko wax lu ma lay wax dama ko gëm nit ki suñu toogee ñu wax quartier Nioro man en tant que maire man Nioro laa dëkk Nioro laa nekk ñoor réy réy boo xam ne mënu ma waxtaan ak ñoom bu ma waxtaanee ñoom daan ma wax lu leen naqari daan ma wax lu ñu bëgg même bu nekkee nee nga ne am na loo xam ne du compétence su maire. Mhm. mais man xam nga maire ban maire laay nekk. Mhm. man damay nekk maire boo xam ni borom kër laay doon uuf njaboot lay doon ça veut dire que damay accompagner nit ñi. ci foo xam ni na am man mën naa fa dem ci sama titre jàppale leen fa te moo sama compétence. le discours est prometteur suñ jiyee ko si loolu dañuy xam ne Matala Fall membre bi nga xamante ni si conseil départemental nga nekk bu Nioro du Rip. te le président Malaw Sow ko yan acte la seen équipe bi teg au niveau départemental. non ak yan réalisation c'est-à-dire ni xam nga conseil départemental man euh, nekk naa fa ba mu commencé ba léegi. loo fa gis. waaw euh, la ma fa gis. mooy lu ma lu ñu fa mës a def. Mm-hmm. loo xam ne askan maa ngi maa ngi ñëw lu ñuy discuter. Mm-hmm. man lépp lu may intéressé. Mm-hmm. mooy danga may wax ni lii lañuy defal population yi. waaw waxuma politique politicienne. compétence yi nga yor. lii lañuy defal population yi boo delluseewaatee. nga ni ma lii def nañ ko lii taxawal nañ ko lii taxawal nañ ko. man chaque fois comme gis naa ni loolu amu fa. amut fa amu fa. bañ fa ba ngeen waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. Mhm. budget buñ fa voté. Mhm. man rek man rek. Mhm. maay bañ. yaay bañ man rek maay bañ. xam nga maay wax Nioro yëpp a ngi may dégg. ngay bañ li may bañ mooy lii ñuy wax ak ni ñu koy doxalee waa Nioro duñ ci gis seen bopp. waa Ngayeen duñ ci gis seen bopp. waa Kaymoor duñ ci gis seen bopp. waa wax Ngouna duñ ci gis seen bopp département Nioro du ci gis seen bopp comme lan ak lan ak lan parce que loolu dafa baax askan wi xam non cest à ni xam nga xam nga budget boo yoree budget boo xam ni bokkul sax ak ak mairie budget boo xam ni état bi rek moo la koy versel xanaa boo muñulee nit ki benn at ah boo muñulee nit ki benn at ci lu ay millions ak i millions boo ko muñulee benn at su paree war ngaa ànd ak moom moom miy jëf mu ni lii de def naa ko lii defar naa ko lii defar naa ko lii defar naa ko lii defar naa ko du dëgg waxuma budget xam nga budget maire yi moom am na duñ ko am na luñ ciy lijjanti mais budget conseil départemental conseil départemental xaalis bi yëpp dañ état bi moo koy versel dans le trésor après kay voté yaa ngi dégg loolu nag ci gis-gis boobu ma gis man moo tax man gisuma kenn wonuma teguma ci sama bët gisuma orientation yoo xam ne bi dañ ciy dimbali population yi moo tax fun ko voté rek man ma bañ kon jàpp nga ne conseil départemental bu Nioro deful benn réalisation ah ko euh, woowal seen président en en tant que membre du conseil. de façon yow war nga xam war nga xam war nga am les informations man ma ko man xaw ma ko ma ko xamoon kay dama la koy wax moo tax ma bëgg ma bëgg la orienté ni la léegi wool président bi nga laaj ko parce que il me semble sax jaar na fi. ñëw na fi Equivox TV. nga laaj ko. Mhm. nga laaj ko lan nga mhm. su la ko waxee woon la ko. xam ni man man man peut-être. man jàpp ne réalisation. amul man gisuma ko man. man je suis man gisuma ko. département Fall waxee dañuy wax carrément ne askanu Sénégal. Mhm. mii Nioro du Rip ak gox bu mu mënti doon. Mhm. budget yi nga xamante ni ñoo ngi koy voté au niveau communal et départemental xaalisu askan bi la. Mhm. askan wi lañ ko war a delloowaat ba mu mat sëkk. mais yow mi nga xamante ni tey gisoo lépp loolu am foofu noonu. dafay tax askan wi tiit jaxle bu baax a baax fu ñuy tëjee moom mooy ci li nga xamante ni moom mooy au conseil nga doon ko tey ñu bëri dañoo jàpp ne loolu amul solo. teg neen ko wante am solo xam nga parce que budget bu fa dugg ak lépp lu ñu fay def joxe ay oto chaque fin du fay xaalis def li mmh. au niveau national dañoo jàppoon ne priorité bi mmh. feneen la mmh. looy wax askan wi waaw xam nga xam nga priorité moom euh, ku nekk li nga jàpp li mooy priorité moom nga jàpp mooy priorité mais Sénégal dafay dox dafa am ay institution dafa am président dafa am assemblée national dafa am haut conseil dafa am euh, conseil environnemental yooyu ay institution la ci réew mi loolu la Sénégal tëroo population yi tamit ñoo ko def ci référendum maa ngi ñëw maa ngi ñëw mhm. ci référendum lañ ko voté mhm. mu existé mhm. loolu donc du man maa kuy dindi du man maa koy def maintenant man en tant que membre du conseil man je sais que haut conseil su amul woon sax dañ ko war a defar. pourquoi. parce que au conseil dafa nit ñi lan mooy seen njëriñ. maa ngi ñëw mooy seen liggéey carrément parce que am na ñoo xam am ñoo xam ne dañoo jàpp ne xam nga loolu moom du manqué Sénégal loolu moom toujours débat yooyu dafay am mais man dama lay wax rek euh, d'abord président de la République dafay saisir au conseil par rapport a un problème ponctuel ñu daje en session ñu liggéey ci approfondir ci auditer de ministère auditer des directions auditer ay organismes ba am ci lumière bu leer nañ. da ngeen di auditer ay ministères. waaw da ngeen di auditer ay directions. waaw mën ngeen auditer mairie tamit. non auditer na gënu fi mairie mais mais euh, on rencontre euh, l'association des maires. non attends de mais wante yéen. waaw maa ngi maa ngi mën ngeen auditer ministère ak. waaw waaw waaw rencontre boobu dafa ñuy permettre ñu am une lumière claire boo xam ni un rapport précis bu nu jox la chef de l'État mooy nag mooy président de la République nous sommes des conseils mais nous estimons aussi que et puis même bu nekkuloon du loolu est-ce que c'est décent nga bëgg kilifa nga wax ni mu mu demande la benn étude benn liggéey nga def ko ba pare nga def ko ci journaux yi mais waxuñu maa maa ngi ñëw mais attends non da nga ma poser question da ma ni. la question elle précise mais xam nga lu ñu wax monsieur Matala Fall. Hmm. parce que suñ suñ soo ñu lay joxe nombre tànk am na ay role ak ay mission yu ñu la sant. waaw mais rôle yooyu noonu ak mission yooyu noonu ah, dañoo bëgg ngeen leeralal ko askan wi. Ah, moom laa lay leeral moom laa lay leeral. vas wax naa la wax naa la nii. Hmm. waxuñu leen rapport yi ngeen tënk ngeen wax on peut être saisi hmm. on peut être saisi par le chef de l'État. mais mais bu boobaa la ñuy liggéey muy nekk un lig un travail profond liggéey bu xóot boo xam ni avec beaucoup de lucidité des gens très cultivés yoo xam ni aussi il ne laisse aucun point ñu analyser ko def ci rapport bu mot sëkk dem remettre ko le chef de l'État mais je ne pense pas que su nekkee bu nekkee nun loolu moom mooy mooy sunu rôle nekku nekkunu ñoo xam ni dañu ñëw ñëw comme beneen yeneen institution taxaw di euh, explique di divulguer mais nun sunu rapport ki ñu koy jox moom lañ koy jox. jërëjëf question kon loo kon loo lii nga xam ni mooy mooy déficit bi. Mhm. mooy peut-être ne nit ñi. loolu ñu jàkk mën a jot suñu liggéey. ba ñu wax leen en profondeur la ca nekk loolu moom moo tax nag léegi bu leen neexee ñu wax ni ñoom liggéey du mais mais le conseil fait un travail profond le haut conseil dama leen ni bu amul woon ku ko xam bu amul woon dañ ko war a créer mais nag mais dafa am rôle boo xam ni foofu la war a yem fi mul yem fi ñu ko yemloo foofu la yem mm-hmm. tey Matar Fall wax nga ñu loolu ne dafa am liggéey bu profond boo xamante ni carrément mënu leen ko jéebal di ko jox askan wi mm-hmm. toujours dañuy ñëw ci côté information mm-hmm. parce que am na information yoo xamante ni askan wi dañ ko war a am le président de la république ak institution yi fi nekk yëpp dañ fi nekk ngir askan wi. Mhm. askan boobu suñ fi nekkutoon yaakaar naa duñ wax loolu ko mhm, mhm. kon les gouvernants. ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi. war neen gën a mën a waxtaan ak askan wi bu baax a baax. loolu am na léegi en plus de cela. monsieur Matala Fall. gis nga temps yi lu xew Sénégal. la vie est devenue très chère. en 2012 Sénégal yëpp ku nekk yaa ngi koy fàttaliku. Macky Sall ne te saako ceeb bi ne dinaa ko wàññi. mais mais euh, gis nga dund gi nu mu seere léegi mais Ali Ali damay wax damay wax ah. dund gi dafa seer léegi mhm. te constaté nga ko parce que kilifa nga mhm. borom kër nga mhm. est-ce que bi est-ce que diggu mu période bu mu tombeel di période nawet est-ce que jafe-jafe yooyu noonu lu war la wala lu warul la non sa à dire euh, li gën mooy dund bi na gën a yomb nu mu gën a waaw maa ngi merci d'être avec la population non non non non bàyyi pax ma yeggale loolu moom mooy li gën mais man li ma constaté man te Sénégalais yëpp constaté kook man mooy Macky Sall ba mu jëlee nguur gi ba léegi benn hausse amul benn hausse bu mu mës a teg ci marchandise récemment la situation bi am et situation bi nga xam ni mu am léegi la am lu tax mais maa ngi ñëw mais bu amoon avant léegi sax du bett nit ñi parce que Sénégal Afrique àddina bi dañu traversé période boo xam ne bu difficile su nga Covid bi li mu perturbé ci Sénégal lu mu perte loo Sénégal dans l'économie économie économie Sénégal ni mu ko daanelee mais je pense que Macky Sall il est fort non attends mais non, attends. mais nag mais non, attends waaw maa ngi man maa lay laaj ma yeggale aussi may ma wax la foofu noonu parce que foofu waruñu ko mën a tëb waaw parce que gis ne début covid hmm. état jël ay moyens yu bëri hmm. de milliards ñëw taxaw si askan bi fay courant jàppale leen ci ndox jàppale leen ci lu yaar jàppale artiste affaire yi noonu est-ce que nekkul loolu mu joxe woon moom la bëgg a jëlaat moo tax mu yokk non non est-ce que ça vaut la peine est-ce xam nga man nekkuma ci logique nii mhm. euh, loolu la bëgg a jël non non man li ma bëgg a wax mooy mhm. mais aussi askan wi nga war a contexte mondial askan wi ngeen war a àndal waaw dafa nag nun askan wi rek la ñuy àndal àndunoo keneen nun mhm. àndunoo keneen askan wi mooy dama ni pourquoi affaire yi wax dama ni dama contexte bi situation bi àddina bi traversé ci période bii bu ñu résister su Sénégal résister ba période bi ça veut dire que bi jàmbaar la ñu lajjul fenn ah mais xam nga xam nga aussi lenn dafa nekk liggéey boo xam ni lépp a baax zéro faute amul amul fu ñu lay critiquer Sénégal boo xam ni mat na léegi jeex na loolu du am mukk Sénégal liggéey la boo xam ni day continuer avec Macky sàll dafay nekk. après Macky Sall après Macky Sall dafay nekk. Hmm. mais nag lu seer lii Matala Fall. Hmm. ñu bëri yëguñ ko de mais ba doole yëg neen ko. Hmm. ba doole bu nekk si. waaw mais yàlla nu yàlla dimbali Sénégal de l'intérieur yëg na ko. waaw parce que nuñ koy waxee. ñoom buñ ko xoolal xoolal ko yëgee. nun ñoo ko gën a yëg. su nga buñ ko yëgee nun nun peuple bi. nun nous sommes des produits du peuple nun demul fenn. dégg nga nun dawunu suñu peuple. mais waa déglu mais au conseil mën na xëy jënd saako ceeb te du ko yegg. waa waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. te ñoom ñëpp askan wi lañ fi nekkal askan woowu moo sonn di jëm élection mbaa du yàq seen élection maa ngi ñëw yàlla na bu mu ko yàq waaye li ma la bëgg a wax moo di li ma la bëgg wax moo di gis nga jafe-jafe bu amee ñëpp a koy bokk. da ngeen war a nekk ah? da ngeen war a nekk à côté de la population. nun nun nun waxuma a côté nu sommes au sein de la population ñun nekkuñu à côté. nekkuñu à côté nu seen biir lañ nekk. te dawunu demuñu fen lu ñoog ñoom ñoo nekk. loolu d'ailleurs moom moo tax ma wax la li ma la wax léegi. ci sérail bi lan moo ko waral Covid bi ah. moo ko waral nga bëgg a wax. Ah. sérail bi Covid bi moo ko waral. Euh, Covid bi moo ko waral Covid bi warul ko le contexte est difficile. bien question boobu je pense que gouvernement bi moo ci gën a placé wu pour waaw mais je dis. en tant que membre du conseil mënoo ci wax. wala conseil le président de la République mënul leen def bind rapport dem conseil que ne ko askan wi sonn neen si lii ngeen jege askan wi tuuti pour la première fois. noonu ci askan bi lañ ne. mais pourquoi loolu da waxu leen waxu leen ko le président de la République. il faut le dire ça ne ko bi seer na dund seer na lépp seer na non non dire xam nga. Mm-hmm. xam nga xam nga d'ailleurs d'ailleurs euh, cher boobu ngay wax. Euh, yaa ngi gis euh, actuellement action yi chef de l'État ñaata milliards la la la la la la libéré. pour pour permettre à yi ñu wàññeeku. il y il y aussi il y aussi il y a aussi les commerçants il y aussi les commerçants mais je pense que Macky Sall bi ngay wax gouvernement bi ngay wax ak ñeneen mais bu ñu sañoon prix du yokk. ñaata milliards Macky Sall génne pour. prix non non non non loolu loolu loolu de façon investir na ci beaucoup de choses loolu am na. mais question yooyu question yooyu moom je pense que. parce que loolu mooy la vie quotidienne la vie quotidienne des Sénégalais moo ñu ëppal bàyyi dama bàyyi mhm. bis boo amee chance dalal ministre du commerce. Mhm. Hmm? ministre du commerce. attends le ministre du commerce yaa ngi dégg si biir Equivox. waaw dégg loolu rek boo amee chance nga dalal mhm. bien mën na la wax question yoo xam ni. du am ay yu ñuy rectifier parce que. non le ministre du commerce moo lay dégg bu baax a baax. Ah, waaw dégg tey yaa ngi bokk ci li nga xamante ni aussi. wax neen ko si coalition benn bokk yaakaar mhm. waxtaane neen fi lépp loo xamante ni aussi si au conseil bi nga bokk la ak conseil départemental de Nioro Dirib mhm. tey suñu la joxoon kàddu gi pour nga tàggatoo tàggu askanu Sénégal tàggu waa Nioro Dirib waaw euh, man d'abord damay nuyu waa Nioro yëpp di jéggalu aussi mhm. euh, parce que wax dafa jafe waaw wax dafa jafe mais li ma leen di bëgg a wax mooy li ne ci sama xol bi waxal lu la neex yéene am naa yéene bu mot sëkk pour yore ñooro liggéey ñooro du am parparloo du am boddante danaa li ma bëgg mooy ma nekk maire boo xam ni bu ma ko yoree nekkee mairie bi ku nekk nekk ñooro nga yëg ci sa bopp nga yëg ni mairie bi ci nga bokk ci li mairie bi moom da ci yëg sa bopp li ñu jox mairie bi jëm ci njaboot gi da nga ci gis sa bopp mais danaa nekk tamit wax naa la ko léegi maire boo xam ni li ma bëgg mooy damay nekk maire boo xam ni damay jege population yi jege leen moo di danañu am problème yoo xam ni sax mën na am sax du problème mu yi mais sama position de maire mën na ma permettre ma faciliter beaucoup de choses ànd ak la jeunesse ànd ak les étudiants jàppale leen taxawu leen nekk seen papa nekk nekk di nga yokk subvention waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw parce que waa Nioro ñoo gën a maa ngi nekk seen mag mhm. nekk seen papa mhm. nekk seen lépp man du ma wax nii lay def lu dul def xam nga mhm. li am solo nee naa la mairie man duma ko teg sama bopp di daw li fi nekk lépp damay toog ñu waxtaan du mu aw ma cash cash di nga dialoguer ak population bi yëpp ñëpp laay dialoguer et besoin aussi appel bi mooy les compétences de Nioro. merci compétence yi. ñi nga xam ni am nañu compétence Nioro. retour de l'expérience dama leen di soxlo man je n'exclus personne. ñëpp laa tàllal loxo. sëriñ daara yi. Ah imaam yi. Euh, enseignants yi. Euh, ku mën a doon rek. te dëkk Nioro. dama lay tàllal loxo pour ñu liggéey. xam naa ni daal am naa xol am naa dogu bu mu sëkk. pour que Nioro ci boppam. ma jëli ko fi nga xam ni foofu la nekk ma yóbbu ko ci kanam loolu nag as nit ku nekk da nga am diir boo xam ni moom la la yàlla may nga mën a jouer rôle boobu euh, tey mën naa ko amaan na bu ñu dawalee ba ca kanam du ma ko man dana nekk yeneen génération ñoo ko moom waaye jamono ji ma ci taxaw maa ngi wax waa Nioro nii tàllal naa leen loxo pour ñu ànd pour ñu liggéey naxantawu ma geruma kenn joxuma nit ñi ay sobleeg pompiteer pour ñu jàppale ma dama leen wax ni nanu ñëw ñu liggéey te danañu trouver en mois quelqu'un de disponible naxuma kenn jaruma kenn loolu moom laay bëgg a wax ndax man li ma gën a soxal tey mooy Nioro dugal nga ma ci département man du ma candidat département Nioro man d'abord dañuy nii euh, bale ci saweewu tànk bala may wax waxu loolu Nioro soxla na ma man xam naa ne Nioro soxla na ma ñooro laay commencé liy ëllëg nag yàlla moo ko xam waaye daal waa ñooro maa ngi koy waxaat maa ngi leen di tàllal loxo muy xale muy mag muy ndaw seetu seetuma parti seetuma seetuma xeet ma dara li ma seet daal moom mooy ni bëgg nga ñooro xamal ni faal tàllal loxo bëgg na ànd ak yow étudiants soxla naa leen mm-hmm. soxla naa leen parce que loolu mooy mooy crème mooy crème avenir ñooñu ñooñu dama leen a soxlo dama leen soxlo bu baax a baax soxlo intellectuel yi aussi intellectuel nag boo ko waxee dañuy defe ni intellectuel lu tubaab rek mais intellectuel arabe am na dégg nga intellectuel arabe am na dama leen soxla boo gisee tey group ànd defar ñooro ñu ngi ay ustaas yu bëri yoo xam ni waxtu wu ne intervenir bu nu waxee ñëpp jàng si waaw kon man ñëpp laa soxla soxla naa jigéen ñi soxla naa góor ñi loolu yëpp nag pour Nioro ñi nga xam ne ñoom ñoom laa bokkal langue bi ñuy wut wax sax moo indi ma wax li ma ci wax loolu waaye man bëgguma doxalee noonu man dama bëgg wut bu rafet su may wut damay bëgg wut bu rafet su ma amee mu rafet su ma ñàkkee mu rafet man duma ma politique di saaga kenn du ma politique di xas kenn waaye nag am naa droit bu ma gisee ni lii jubul ma ni lii jubul noonu laa noonu laa àndee noonu laa bëggee waaw bu ma amee amin gu rafet su ma ñàkkee tamit ñàkkin gu rafet waaye yaakaar naa ni ñooro bu ma leen mayee ñeent fukki ak ñaar ci sama doole ba fi ma toll nii am naa droit tàllal loxo nii leen jox leen ma mairie bi ma liggéey. chaque citoyen am na ci droit baax ba. et votre dernier si biir Equivox TV. Equivox euh, d' abord euh, kontaan naa ci bu baax. bien bi xam nga li ma ci gën a kontaan mooy mhm. d'abord ma fekk leen yéen ñi nga xam ni ñooro ngeen dëkk mhm. ngeen am initiative bi mhm. bu mu defal ma beaucoup de plaisir euh, je vous encourage maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla jàppale leen euh, fu ngeen ko bëgg yóbbu mu dépassé loolu euh, lii baax na xam nga man xam naa leen xam naa sax seen i mag nekk ay élève ak man su ma ñëwee tey fekk leen ngeen bëri ci àddina ba taxawal lii mais dama ci am bégte merci beaucoup ça veut dire que liggéey bi ma la doon wax liggéey ba ma doon liggéey Nioro nii lul dégg nga li ma la wax quand je vois un jeune de Nioro muy def loolu satisfaction la ci man waaw parce que wax naa la ko léegi nee naa la ni j'ai donné toute ma jeunesse à Nioro je suis venu à Nioro à l'âge de vingt et un ans professeur diplômé de l' normal normale ñu affecté ma 21 ans ma nekk fa ba léegi donc bu ma gisee jeunes Nioro yi ñuy def ay entreprise di taxaw loolu la ëllëg bu yàlla defee ñu ñoree mairie bi on a besoin aussi de vous parce que wax naa la ko léegi lépp communication la waay waay population yi du am na yoo xam ni dañu leen ko war a wax même am na ñoo xam ni xamuñu luy budget dañ defee ni budget xaalis la boo xam ni danga koo def mairie rek ci benn kees heure bu la neexee rek nga daal di jël xaalis génnee bu la neexee nga lekk. te dafa am yoon bu muy jaar mais du loolu sax xaalis bi nan lay ñëwee. Mhm. loolu da koy wax nit ñi nit ñi xam ko ni ko xamee. bu boobaa ngeen leen nekk lan la ñuy def. Mhm. lu ngeen bëgg nga élaborer programme. mais programme man du ma ñëw fii ñëw fii ci seen kii bi rek. bindaat ay këyit rek daañu leen lii mooy sama programme. li hmm. mooy mais programme boobu est-ce que waa Nioro bëgg nañ ko. loolu yëpp dinañ si dugaat si yeneen numéro yoo ah, xamante ne ñoo ngi koy def. di am mbégte ak contentement si yow. parce hmm. que voyage bu sori nga jógee Saint-Louis. Hmm. ñu wax la ko nga toog dakaar ba tey di ñu xaar. loolu ñoo si kontaan en tant que. boîte Equivox TV di la si gërëm bu baax mhm. suñ mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi leen di joxaat yeneen numéro di leen wax ne li mooy liggéeyu Equivox TV mhm. di gërëm suñ technicien Habib Bibar Seck doon doomu Nioro mhm. doon producteur bëgg askanam bëgg Sénégal yëpp ñoo ngi koy ñaanal yàlla tawfeex di ñaanal yàlla suñ directeur général El nga gis ko ñoom ñoom ñu def accueil bi ñoom balde nekk si technique bi si biir di liggéey cest à benn boîte boo xamante ne la ay ndaw ñoo dajaloo tey ñoo ngi wax ay problème emploi lu nekk mhm. teg benn affaire pour absorber ay nit jëmale ko ci kanam yaakaar naa état ak ñëpp ju si mën a jàpp mën neen si mhm. jàpp mhm. di wax ne opposition pouvoir société civile ak képp kon domaine booy yëngatu soo ñëwee bëgg a toog waxtaan da ñëw toog ak yow waxtaan ak yow nga wax loolu si métti si askan wi ñiy jiite tamit bañuñ leen saa su nekk parce que njiit dafa war a am ndam su amee ndam ñëpp ñoo am ndam ne Sénégal yëpp xool benn bët ñu xam ne Sénégal ñu ko tabax dafa bëri doole Sénégal Ahmadou Bambale El Hadj Omar Foutal nit ñu tedd ñi maam El Hadj Abdoulaye Niass ñoo leen jox rendez-vous à très bientôt di gërëm di sant encore la population de Nioro Drib ci taxawaay boo xamante ni taxaw neen ko si ñun wasalaamaaleykum wa rahmatullah et merci